ñëw boo xamante ni ay kuréel la di yëngu ci biir askan wi lu ñu discuter nag mooy wàllum liggéey ñi ko jiite ñooy confédération nationale di travailleurs du Sénégal muy CNTS. Euh, dañuy xalaataat ni ñuy liggéeyee. Uh, maanaam am na liggéeykat yoo xamante ni ñi ngi nekk ci secteur yoo xamante ni ala kuliyal foog ñu coppi leen et niñ leen di coppee nag dafa nar a am ay répercussions. ñu wax ci mbirum dundin kuréel yi nga xamante ni ñoo ci liggéeya ñoom la ñu woo fii ngir tamit ñu liggéey ci li nga xamante ni ñëpp la soxala benn firnde mbirum environnement. muy càmm gi muy may mi muy napp gi ñooñu. aujourd'hui changement climatique da leen di impacté parce que rareté ressources yi nga xamante ni ñoom si suuf si la ñuy yëngu. donc ñooñu automatiquement da ngay xam ni liggéey boo xuma la impacté rek mais bëri na si ay postes de travail yoo xamante ni dañu nar a naax saay. dañ ci war a boole tamit liggéey bi nu mu mën a jëmee kanam. ñu fi jógee ñu mën a am des recommandations fort ñu ñu mën a mën a yóbbu si waxtaan ba dëppoo si nan nañ war a mën a def nan nañ war a mën a jaar pour Sénégal. d'accord appliquer euh, CDN boobu noonu mooy document bi mu tëral te tamit du am benn loraange si liggéeykat yi. ndaje mi nga xamante ni nag CNTS moo ko wotee lu muy fësal rek mooy Sénégal am jàmm liggéeykat yi mën a am jàmm ñu boole ci syndicat yëpp lépp nag ngir fexe ba ku nekk fi ngay liggéeyee nga mën ci gis sa bopp.